lan lan lan koy wax. parce que xale tam ak lu mu nekk bébé nekk bébé dafa am ay àq am ay yelleef. yoo xam da nga wax loo ak moom ci yan condition nga ko joxe woon. Mhm. ci yan condition cest diir bu enquête bi xootee dëgg-dëgg nga ne ba ngay won lor nga fa ñëwoon wala ba nga amee doom ba pare nga ko yóbbu. Mhm. yooyu itam ñoom dañuy ragal par exemple dañuy ragal bu ñu demee ñu tee leen. waa xam nga kii woote léegi dafa wax lu am solo. Hmm. lii feeñ ñi tey yëpp. mooy diggante démb ak tey. Mhm. enquête bi moo ko feeñal. donc ñiy wax ne euh, faatu nañu ci condition yu atroce am ku ne euh, mooy assistant boobu wax ne benn liir bi bu mu faatoo dañ ko nëbboon ci paan. Mhm. di xaar fuñ ko suul mais loolu yëpp est-ce que tey mun a nekk sa conscience euh, liy waaj ji fàttali léegi ngay def ay vidéo di retaan di def ay vidéo di fecc déjà jour ba ñu fa dem di ko jël interview ñu ngi toog pendant trois heures de temps. di ko xaar mu pare gis nga live am bi mm-hmm. def na live ba tiddi périgom fecc fecc yu yu ko neex kon ça veut dire que moom amul lenn loo xam ne dina peser euh, si conscience am mm-hmm. kon boog ñaaw ñàkk seen bakkan muy liir yi dee nañu am na ñeneen ñu koy remplacer keneen mbir yi safu ko de d'accord te ñu ci laal itam dafa bari yaa ngi wax naan El Hadj Sène mi ñu jël ki ci ligne bi Albourakh dellu si waat allo salaamaaleykum salaam ngoone na nga ngi fi alhamdulilah. xanaa àndandoo bi mu ngi ci jàmm. ah. àndandoo bi ndax mu ngi ci jàmm xaw ma turam. waaw waaw alburaax mi ngi ci jàmm bu baax mu ngi ci jàmm mu ngi lay dégg. alburaax mu sell mi. waaw mu ngi lay dégg. waaw ngoone mbirum Ndella Madior ku taxaw ne Ndella li muy def yàlla moo tax. bon da ngaa da ngaa da wax lu lay neex rek. Mm-hmm. parce que xam nga ne dee fan la commencé ba sénégalais yi xam ko. Mm. waaw foog ngay xool. Mm-hmm. dee dee na am rajo. Mm-hmm. ñi doon liggéey ci rajo bi am na lu ñu waxoon. dee jël na ay sëriñ. comme Espagne comme Europe Europe fii. waaw ñii bëgg lu yomb di jël sëriñ. ngay wootee direct. Mhm. mu dem imposer Sénégalais yi lu mel noonu. waaw. waaw am lu am bu yomb la boobu. mu jógee ci loolu. ndee la dem def candidat. Mhm. déposé. Tambacounda la jeexale ak Macky waaw. uti ci njëriñ Sénégalais yi. moom benn enveloppe la ci uti woon am na ko jeex na. ndee mhm. la mu gën a topp kii. a rajax fépp mm-hmm. waaw fu mu mujjee ak rajax fépp mm-hmm. dee la jógee ci loolu mu ubbi benn groupe bu nekk fii ci Europe groupe boobu da uti autorisation ci gouvernement bi jox la mm-hmm. léegi képp kuy bokk ci groupe boobu mooy ñi mënul dem eh, baali ji bëgg am gel mun ngaa bindu keetam mënul dem baali jigéen la moom bëgg na am jëf eh, ku ku mu àndal moom itam mu bindu ci bindu bi tamit da ngay fay même fii da ngay fay. dangay fay da nga bokkoon ci groupe bi da ngay fay. da ngay bokkoon nga ci groupe bi soo bëggee bokk ci yooyu. waaw mooy groupe yoo xamante ne ay jigéen ak ay góor xamante. da ngaa ci biir. da ngay man dugguma ci biir mais xam naa ni am na parce que man dégg naa ndee la ci boppam mu wax ko. d'accord. waaw moom su ko waxul gémminam man ma déglu ko. Mhm. man damay déglu Ndéla. Mhm. man du ma la wax noonu. léegi Ndéla su jógee ci loolu mu taxawul ne dafa bëgg a dajale ay xale pour léegi yor leen ay liir. Mhm. mu ne ngir yàlla moo tax xam nga ne kooku deful loolu ngir yàlla. d'accord. yàlla taxul parce que li nga cee xam ne. fii ci Europe koo xamante ne mun ngaa def loolu mun nga koo def mhm. mais ci anam yi nga koy defee man su ma juree sama doom ma bañ ko yow kooku boobu doom yow munoo koo jël parce que doom la boo xamante ne dafa rajaar justice ba juge yi may ko kayit mhm. man ñu wóor ma suñu xamee ne fu ma dem ci àdduna je suis obligé fu ma liggéey ñu dàgg ma pour xale maa wala man ma rey sama bopp. Mhm. ñoom ñu jël en sa xale bi mais loolu ci gouvernemental la. d'accord jigéen boo juree sa doom nga bañ ko kooku beneen affaire la ak man ma jur sama doom dem dénk la ko ñu waxtaan ma lay fay kooku beneen affaire la bokkul ak li ndee la di créer mhm. parce que ndee la li muy créer loolu yoon gouvernement rek moo ko mun man ma jur sama doom itam munuma koo yor ñoom ñu xool ba xool ne kii mënul yor xale bi moo ak yaay ji yëpp la jël en charge ñun àll bi lañ dëkk kee dugg soo jud soo juree sa doom mënoo koo yor hôpital bi nga juree sa doom am na am na ñoo xamante ne ñoom ñoom loolu la liggéey ci hôpital bi d'accord Sénégal moom nga nekk soo ko jaarlee ci yoon waxuma la nga fende dem biir def la neex nga ne sama waa buñ ko yëg mhm. da guur sa doom ci hôpital boobu am na sans san sociale yi nekk foofu dañuy test bi xam ne yow li ngay wax feno dañ lay jàppale ba au bout yow sa doom boobu dañ lay jàppale xale bi d'accord su feebaree ñoom ñoo koy jël sar soo manqué dépense am na luñ lay jàppale mhm. ci Sénégal boobu man duma jegewuma Macky sax duma dara Macky mais dama lay wax lu am waaw loolu beneen affaire la mais bandi buy bandi bandi lu dem jur doomam naa ne dem fekke morom bandim mu ne nañ ndeel ndeel la dafa xale yi comme mbalit bu ñu sànni rek man ma neex la ay def liir yi mhm. moom loolu la jàppee xale yi parce que ci anam yooyu lañ organiser seen banditisme mhm. ay étudiants day leen dugg sama góor su ngay juree rek man je suis je serai responsable mhm. yow mun ngaa gis doomu aadama bu mun a jotee kii mu ne ay doomu yu ñu suul est-ce que suul nañu ñooñu est-ce que jaayuñu ñooñu lekkuñu lekk loolu loolu yëpp dañ ko war a seet. d'accord ñuy tuddee ay Macky lu mel ni makisal ñu tuddee ko moom mu nekk centre boobu Macky Sall faalewul loolu Adji Sarr la faale. Mhm. <laughs> moom faalewul loolu de Adji Sarr la faale. centre masse yi ñuy bëri Sénégal yëpp moom centre masse bu bu Adji Sarr boobu la soxla Macky Sall. d'accord. waaw kooku kooku moom wax nga waxum mbiram wax gouvernement moom weesu nañ ko parce que kayit boobu ku koy joxee tamit du benn nit. bépp gouvernement ku ku ministre boo xam rek da ciy bokk. Mhm. parce que ñi nekk fii yow soo joxee soo joxee nit sa doom fii mu ne par semaine ngay jaar foofu nuyu ko est yow li ngay fayee ko li ngay fay kooku dafa bëri de. d'accord. kooku nga dem jëli ko loolu rek li ngay fay loolu rek <laughs> li ngay fay mais day am nit ñoo xamante ne ñoom itam dañuy fayee ko comme yow ñoom ñooy toppatoo xale yooyu. mënoo mhm. jël ay nit naan da nga koy fay fukk. ñu ñaar lii nga xam ne doo nelaw mu war a nekk de mais médecin yëpp nekk war a nekk ci biir mais loolu loolu dañ. d'accord Ndéla bandi la. Ndéla de xoolal la du deful ko ngir yàlla ah ñi ko ciy jàppale ay bandi lañ parce que bëgguñu xam dara ci ndeel bëgguñu ko ñoom nguur bi dañ leen obligé dugal leen ci ndeel mais bëgguñu loolu parce que business bi est-ce que soxla ci liir yooyu ñoom sax. c'est des questions. Mm-hmm. parce que léegi man su ma bëggee même eh, tànk liir su ma jaaree foofu peut-être six heures la la recherche pour la voir merci beaucoup. merci ñu ngi lay sant bu baax di merci ñu sant bu baax euh, gërëm ko.